weer yi suba su ne suñu tere demi jotee altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi tës di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur tës ak Ahmed Aidara yow de dem nga bay ma man de wey naa laay yow de wetal nga ma man de wey naa laay yow de dem nga bay ma man de wey naa laay yow de wetal a xam yow la mën a digaaleel yow la miin yow la xam yow la mën a waxtaanal yow la miin yow la xam yow la mën a digaaleel yow la miin yow la xam yow la mën a digaaleel yow la miin yow la voilà asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala. gaa yaa ngay Xadi Mbaay. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. joyeux anniversaire maman Ndeye Diop yaayu tuutu ca Thiès. happy birthday to you Mansoulaye na def. happy birthday to you maman Ndeye Diop. sama benn xarit bu baax aussi doon anniversaire le 27. le 27 bii passé le 27 bii passé. happy birthday to you Adja Abibatou Mbuub depuis France. Euh, sama sama mag ju baax a baax a baax. maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw na ngeen def ak yi tey. alhamdulilah maam. waaye laaj. mbaa xewlu nga. waa euh, euh, waaw maa ngi maa maa xëy na damay wàcc. Ah, waaw waaw bu jóobee di defee ba pare laay doog def. ba ah, Cheikh. <laughs> ba Cheikh. annonce yi tamit demoo. adduna maam. waaw adduna. Hmm. loolu ne sama yoon nekku ca. Hmm. ba tax nga am ko ci faral. Mm-hmm. mbaa nga taxawee ci lu tilim. Mm-hmm. Hmm, musiba na la cee fekk. Mm-hmm. la. bul wàllee bañee. incha allah. boo fekkee xeex àtteel. boo déggee lu ñaw nëbbal. boo gisee lu bon suulal. nettalil kii sax wax ju baax joo waxoon ci moom te fekk déggu ko woon ci yow mu yàq formaté wax ko ko. d'accord de. waaw. dëgg la ba meer ba toogee ci néegu ñax ba. ñaari ndax di xeex. pitax ñëw ni ko maam waxal ci si ndax bii xeex. maam ni ko sama yoon nekku ci sindax yi xeex. man da nga maa yab de man mu toll nii man sama sama ndëskën nga may wax ay sindax yuy xeex bul ma ko waxati. wallaay pitax dem ni fas. waxal ci ñii di xeex. fas ni ko sama yoon nekku ci mu ni nag waxal ci xeexu sindax bii mun ko sama yoon nekku ci. mu ni xaar waxal ci xeexu sindax mun ko sama yoon nekku ci. ñaari sindax yi xeex. ba ni dépp ci ànd ba fekk ànd ba ami xal mu tas ca néeg ba mm. néeg ba tàkk meex ba dee mm. ñu wax fas wa di tàgg ji fas wa ñibbi si dog dee mm. dëj bu tooy ba ñu rayal ka gan ya ma dee sarax sa ñëw ñu rey nag wa nag wa dee xanaa kon kër ga tas na ku ci des bi tax ma ni woon ma ni woon fay leen ay fay ay nag mm-hmm. yeneen bi nee ne mooy bu ñu ko siiwal rek nëpp nëppal ko rek mu Cheikh Sarr waxee ja mbedd ma. ma xam ne waxu Cheikh Sarr bu ma ko siiwalee fitna lay indi. boo hmm. ko siiwal. Hmm. Hmm. ma jaarale koram daal. waaw. maa war a teer ko. rek. kuy wax nag yaay juum. yàlla doo nga mat. waaye daal waaye daal Cheikh. waaye daal Cheikh man du ma wàllay bañee. Mm-hmm. Mm-hmm. man daal du ma wàllay bañi mm-hmm. man daal Mantoulaye Cheikh Sarr neexu ko ñoom ñaar ñoo ko seq waaye mënu tee Cheikh neex ma léeg-léeg sax nga wàlli ña ngay wàlli bañal dañuy xëy juboo bala ah yaa cee des waaw looloo cee ne nag yente bee ko wax yente bi nee na sa soppi bëgg goo xam da nga koy contrôler ndax ëllëg bu mbañeel amee mu metti ci yow bañ ko itam ndànk ndax ëllëg mën naa nekk sa soppe lépp loo ciy def rek. Mm-hmm. bu ëpp def ko ndànk. dagg la def ko ndànk gi nag mooy bu ci def lu ñaaw. Mm-hmm. waaw comme ni ñuy waxee ni mën nañoo baale waaye doo ñu obligé ñu fàtte. du ñu fàtte <laughs> te sax nag loolu. lu ñaawle bu bëree sax mën naa andi njëpp ci yow. Mm-hmm. day lan. Seydina Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum radiyallahu taala anhu. nee woon na nit booy nit lay jéppi de. jàngale na ba jàngale nit booy xuloo ni ngay xuloo. waaw. nee na booy xuloo ak sa nawle. waaw. muy wax ay kàddu yu ñaaw di la ko jëmee. waaw yow fii de diw ëpp na di ay. Uh-huh. ah lii de ah yow war maa wax ah, lii. ndax ju ba ndax ju booba. ah man de duma la ko wax. Ah, hmm? te jaa ngi tontu. waaw. ah hmm? lii ëpp na di waaye déet waay ah nee na féetewoo lool rek. Hmm? jeex. rek ndax jubóo day am. jubóo day bu jubóo amee kenn ku nekk la bu ñaawee da ngay sëkk. wallaay da ngay sëkk wax na rafet ndax waxaat ba. waaw nee nan nan nan la ñuy xul. waaw wax na rafet ndax waxaat ba. Mm-hmm. waaw lu baax daa yomb a nettali de. billaay wallaay. mu ne loo mere mere nit ubbil ko feneen. kese. waaw bul tëj bunt yëpp ubbil ko feneen. yow na jàmm soriwul jàmmoom. rapidement balaa ñu yëgale waxtaan bi. Euh, dañuy euh, seeti euh, ñu ngi lay woo ñu ngi lay woo dañuy dem chimère wool ñu ko dimbali ñu rek euh, euh, ki nga xam ne moom mooy waajur wu góor wu Mohamed Diol. Mm-hmm. Mohamed Diol. mi fi ñëwoon waaw. Mohamed ma ñu créé ma ñu créé woon yaay baay. ma woon yaay ak baay. ok. Mohamed nag mbir mi dafa am lu yees ci dossier bi. ah bon ah yes am na lu ah, yees donc euh, dañuy dañuy dañuy dañuy moom dañuy ñuy jéem a jokkool nii hmm, xaaral ñu woo rek. xaaral rek ñu woo leen nekk nouvelle bi ñëpp di xaar waay. mu nekk nouvelle bi ñëpp di xaar waay. ah xanaa. waaw delloo nañu ko ay mbokkam. xanaa. su dëgg neex yàlla. ñëpp te loolu la ñuy xaar fi nekk. donc am na lu ci yees. espérons que rek ne. Mhm. li yees mooy di. Sénégalais yëpp luñ bëgg dégg. Mhm. waaw Mohamed Diol moom. cas bi cas national la léegi. waaw waaw waaw allo. Mhm. allo salaamaaleykum. cas ah, ah. national la. et eh, bul coupé bul coupé numéro bi lay woo. sëñ bi joor. chimère moo lay woo noonu de. Mm. Mm. ci yees na rek. Mm. waaw dal na xel. dal na xel alhamdulilah alhamdulilah. Mm. dal na xel moom kaar bu intéressé Sénégalais yëpp. dal na xel. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. yàlla dolli sabab. moom moo coupé ah? nekk moom moo ñu déglu de. eh. eh. Grand Ndiol. woo ko direct ci sa téléphone rek. Mm-hmm. non kii laa wax Mantulaay laa wax. non non bu ma ko du leer du leer. donc mm. il faut mu mu jéem rek. waaw bul ko pees dimbali jàpp ci rek kawit. xam naa comprendre lul woon. dafa nekk di. allo. bul di bul di waaw. waaw en direct sëñ bi Jool. waaw Mantulaay naa def. ça yaa ngi ci jàmm. sant yàlla baax alhamdulilah. ça bien. waaw comme ni ko waxee da nga war a dugg réunion moo tax ñu dagg lépp. ngir mën a wax ak yow laataa ngay dugg ci réunion bi. ndax nettali ci gémmiñu borom la dàq yi dañoo gis ne dañoo wax ay information que ne Mouhamed Diol léegi amatul sikki ah. sàkk euh, leer na la. Mm-hmm. Euh, léegi dañu ne femme moom avoué na ni du doomam da koo jël. Ah. Ah. léegi ndax mën nga ñëwaat dëggalal ni loolu information bu wér la. wa ñun moom naka jekk euh, comme ni ma la koy waxee chaque fois di leen nuyu di leen gërëm. Mhm. mosuñu am sikki sàkk ne Mouhamed Diol suñu Mouhamed la. Mhm. ndax. Euh, ku jël sa doom yaakaar naa di nga ko xàmme. waaw ah, dëgg dëgg mm-hmm. dëgg dëgg. mosuñu si sikki sàkk comme ni nga comme ni nga posé question bi ne amuñu si sikki sàkk ne ko waa yéen peut wala ñeneen ñi nga xam ne xamuñu. Mm-hmm. ñoom moom dama leen di nangul loolu parce que bu leen neexee ñu ne am nañ ci doute parce que kii taxaw ne maa kee taxaw ne maa ku xamul mën na am doute. Mm-hmm. waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo jur suñu doom ñun moom wax dëgg yàlla mosuñu si am sikki sàkk ne suñu doom nit ñaa ngi wax ci réseaux sociaux yi lu nekk ñu ngi koy wax. Mm-hmm. mais l'enquête mu ngi continuer. Mm-hmm. di dox ba femme bi nga xamante ne moom lañu fekkoon xale bi ci moom. Mm-hmm. commandant bi expliqué na ne mujj na avoué ne jurul naa ne loolu benn avancement la benn preuve la. loolu kay mooy jeexal boo xamante ne na jeexal wax ji. ndax ku taxaw ne moo jur génne ay kayitu jutam dem ba mu neex ko mu taxaw ne jurul moomu la. Mhm. Mm. yaakaar naa ne dellu na ginnaaw si li mu waxoon. fu mu ko jëlee nag kon. léegi delsi na seen. wala ba tey. Hmm? jot ngeen ci xale bi wala. waaw gis jotaguñ ci jotaguñ ci. jotaguñ parce que mhm. peut-être xamaguñ moo tax jotaguñ ci. Mhm. ñu ngi siy continuer di topp. démb ña nga fa barki démb ña nga fa. tey jii sax fa lañ jëm incha allah. yaakaar naa ne dinañ si jot le plus rapidement possible. incha allah. incha allah incha allah. jaajëf monsieur Diop. waaw jërëjëf Mantoulaye. jaajëf merci beaucoup. Mm. Euh, Alaaji. Mm. Euh, moom nag peut-être information foofu la yem. Mm. waaw ci ne femme bi avoué na ni jurul Mouhamed. Mm-hmm. léegi nag enquêteur ñooy def seen liggéey parce que femme bi euh, ci information yu ñu jot mi ngi ñu téye. Mm-hmm. jàpp nañ ko mm-hmm. mais problème bi mooy Alaaji. dañoo jot ne ab la. nan la def ba jot ci Mohamed. Mhm. ñi ko kidnappé ñan la. c'est une bonne question. da ko jënd. Mhm. moo ko santaane lan la. beneen bi mooy réseau boobu ko jox Mohamed soriwul ak réseau bi ko jox Keyti. pièce d'état civil mën nañu jàpp ne ab cercle la rek. pièce d'état civil. parce que dafa am dafa am dafa am acte de naissance xale bi. Mhm. loolu nag mooy cas bi gën a rëy sax. ah <laughs> léegi ñen ñoo ko defaral yooyu yëpp ba tey doom jooju mu mën a sàcc mën a am kay duddoo ci réew mi hmm. am date <laughs> ak heure de naissance ak yëpp hmm. ñen ñoo ko defal su ma nekkoon enquêteur réseau bi mu leen jàppee hmm. dinaa remonter enquête bébé Murtada waaw waaw waaw bébé Murtada bu Touba ñaata at sama tur quatre ans moom ba léegi ba tey kenn gisul xale bi teg nañu dix millions ci dossier am na beneen Mohamed am na beneen Mouhamed bu réere woon Caaroy. Hmm, ba léegi yaay ji daf ma doon woo ba gis naa ko dégg nag. mais daf ma doon woo di may woo tout le temps di ma wax xale boobu doon foo ci banc bi alaaji. Hmm. te mu génn ci buntu kër yi gisatuñ ko. deux ans la moom it. Hmm. réseau bi de ku leen teg loxo. amaana mën nga gis ay xale yoo xam ne nii. waaw <laughs> côté Caaroy. wala nga information yu leer. c'est que man sama problème mooy euh, ñoom nu ñu jotee ci xale bi. dañ koy jaay. Hmm. parce que xam nga xale bi Mouhamed mi hmm. ki mu nekk ci loxoom sonalu ko. Hmm. toppatoo na ko. biggal ko neexal ko. ba mu changé ci diggante bi. ba mu tubaakal. maanaam da ko dafa def da ko da ko jur. da ko jur voilà moom da ko jur. léegi kon moom li ko ci jotale. est ce que du xaalis. est ce que ñi ko ko jox jaay ñu ko. laaj bu rëy ngi noonu laaj. parce que parce que moom dafa bëggoon doom. moo tax mu def xale bi nu nu ko nu ko awee juróom mënut a defee. léegi nag question bi mooy nan la jotee ci xale bi. loolu mm-hmm. loolu la bi war a génn. réseau boobu nag bu tojee. loolu la enquête bi war a génn yeneen bébé daañu feeñ. Mm-hmm. te daañu xam lu ñu doon jaayee xale yi. Mm-hmm. waaye nit daa amul njëg nag. ba yeneen xale war cee mën na moo koy léegi xale yi niitu yi. loolu moom bi da leen ëpp bopp. waaw du ku nekk ngay laal. waaw nekk ngay laal daf ci xam ne kenn xam ay du xale. kenn du leen na. kenn du la laal. baax na rek hmm. na. kenn du leen laal. baax na hmm. réseau mënoon na bañ a feeñ de. am na yoo xam ne joxatu booy daal di wax. daañu fe daañu feeñ de. kenn leen saa xam ne boo leen saa xamee doo leen wanaas. en tout cas doy na waar lool lool lool lool lool. daañu feeñ maa la wax loolu. loolu daal dañ mën a jàpp. enquête bi moom lu ñuy xaar. ñu wax ñu. nu mu leen nu mu jotee ci xale bi. Mm-hmm. mu wax ñu nu amee këyit yi. Mm-hmm. ah mm-hmm. mu wax ñu réseau bi fa mu féete. et puis et puis soo bëggee doom. eso yaa ngi fi. fes mhm. delli ki xare. waaw aw ko ci yoon bu légal eh, di nga gis koo xam ne day am doom sa ñëw ba sa buntu kër tegal la ko. am na mais am na sax problème yi. Mhm. côté finance am jafe-jafe. ak yooyu dem fa soo demee jaar ci procédure ñu jox la doom. jox la doom doom jooju da nga koy téye nekk à l'aise dem ak moom fu la neex. Mhm. day dem ba ne sa day ne sa doomu xol doomu xol. billaay. Mm-hmm. moom gën ay receleur di di di di. gàddu doomu jàmbur yëpp lor ndeyam ak baayam. ndax doom nu mu saxee si xol. Mm-hmm. wóor. tey na waa de li ci mën li euh, liñ ci mën a jàpp daal te nga xam ne daanaka muy bégal xol yi mooy. Euh, Mohamed moom dina dellu ci ay loxoy waajuram. Mm-hmm. ndax comme moom euh, gàttal na sax enquête bi laay wax. ndax test ADN nag yooyu du ko jarat. ñaar ñu doon xëccoo kenn ki nangu ne moomu ma kon keneen kaa moom. Ibrahima ko sàcc. lendemain tabaski. lendemain tabaski nga xam ne xale yi dañuy dañuy ñaari ndéwén. ñaari ndéwén kon ñaata kon xale yi réeroon. bul xam ñaar ñaata xale lañu. Hmm. lañu roñ jour boobu. ñi naan ay dañoo ñaari woon ndéwénal seen kër bàjjan ak. Hmm. rek yooyu yëpp war nañ ko mën a xool kon. wax nga dëgg de Baye Cheikh. lendemain tabaski. Hmm. dëgg de. Ah, lendemain tabaski fan lañ ñaani woon ndéwénal ak tey loolu ngay wax. dëgg de dañoo ñaari woon ndéwénal. nañ gën a farlu ci doom yi. Ah. sàcc xale yi mi ngi fi sàcc mag yi sax mi ngi fi waxuma laa sàcc xale yi. walaay walaay walaay mantu gaa yi farlu nañu sax. Mm, gën a gën a gën alaaj nañ ko yor ko rek. waaw xam nga fas lu mu daw daw làbbali ko. waaw mhm. waaw ko man kay ci loolu la ànd man vigilance gi laa ànd de. yokk vigilance gi rek. kenn sañatul yónni sa doom te alaaji surtout surtout li ma gën a bëgg ñu koy def ci réew mi mooy. waaw mooy la laaj. waaw di dem di tàggoo. Ah, ah. alaaji fu waaye di dem na tàggoo. waa jaa ngi noonu de. soo amee rendez-vous ak Cheikh mm-hmm. maa ngi. demal ne sa yaay wala sa soxna wala sa borom kër. Mm-hmm. dama am rendez-vous ak Cheikh Sarr. te ñu rayoon ko bërëb temps heure temps la. Mm-hmm. daa tàggoo woon tàggoo moo tax mbir yi ko feeñal de. daa tàggoo woon. nañuy farataal tàggoo gi. dëgg la de. dafa jaxasoo de. dafa ñu ñu koy wax. waaw waaw kay. waaye tàggoo fongil mi itam dem sëgi baat encore. nañu tàggoo nit koo gis am na kenn ku mu wóolu nit koo gis am na kenn ku mu wóolu. sëgi baat encore. même su nekkee ni da nga am rendez-vous ak koo xam ne nii bëggoo nit ñi xamal ko. wóolu nga maa sa xarit bu góor la. wax ko ko ne ko diw maa ngi dem barab ne ko man a diw mi waaw kay. ñoo am rendez-vous bërëb temps. ba pare jox ko numéro diw moom. waaw. daa daa dëkk bi dafa jaxasoo. daa ajuul bëri sax yëglu rek yëglul rek. lu rek et puis xamoo nit fa ngay dem musiba di yàlla ngi. sa sixième sens dicté na la dana ca tey yàlla ngi. kal ñaar baa ngay am rek moo naan la jëm. yàlla ngi wallaahi. Amady Seck rek. wallaahi. Mm-hmm. Euh, ñu avance rapidement. Mm, Samba Samba Yacine Samba Yacine Kane Samba Yacine Kane la tudd carte séjour espagnol carte d'identité nationale carte bancaire. Euh, BBVA carte de santé mu ñëw réer képp koo xam ne na gis na papier yi euh, na woote ci 77 647 81 84 Aïssatou Diallo nee na dafa euh, réer porte-monnaie am na ci biir ay verre mu yóbbu ko gis na woote ci 77 428 58 05 Mbarka Jaxate nee na dafa réeral benn saak à main am na ci biir kurus ak photocopie carte Wave am na lait de corps ci benn taxi diggante unité 16 ak Grand Médine 76 669 82 53 lañ koy woowee Abdou Khadr Lo nee na dafa réeral pochette am bu ñuul am na ci biir carte national d'identité carte bancaire ak carte professionnelle diggante HLM garage HLM ak Guédiawaye 77 158 5 82 30 lañ koy woowee Babacar mbay nee na dafa réeral benn boîte bu transparent am na ci biir parfum ak ay sër diggante Wakaam ak Gueule Tapée 77 935 23 24 mooy numéro mooy euh, Finda Fati nee na valise bu noir la réeral ci horaire garage bi ñu nabi Euh, pour Casamance donc ko gis ak euh, peut-être mën nga ko andi fii Aïssatou Diallo ne dafa réeral porte-monnaie bu marron am na ci biir carte euh, ay verre mu yëpp 428 58 05 Mansour mbay nee na dafa réeral portefeuille bu am ci biir da doon dawal moto nag diggante Bourguiba ak Ouest Foire lundi 28 la ko réeral diggante 19h vingt h am na ci biir nag carte d'identité ak carte étudiant ak xaalis mille 77 761 88 35 lañ koy woowee Mor Fall nee dafa réeral doomam Babacar Fall nee na nag euh, taalibe la dafa jugee Ndiagéen depuis démb le premier mi ngi am 12 ans nag euh, boo ko gisee dafa ñuul ku ko gis rek moom Babacar Fall mii nga woote ci 77 588 31 29 Marème Diouf. neen dafa réeral doomam Papis Diouf depuis deux mois géejawaay neen nag ci daara la nekkoon quartier fii mi Euh, euh, sëriñam mu ngi tuddoon Ibrahima Sow mi ngi am huit ans teint noir la ko gis rek na woote ci soixante dix huit cinq cent quatorze seize quatre vingt dix sept Moustapha Samb nee dafa réer xaalisam ci benn taxi benn euh, somme bu xaw a takku six cent mille neen na mi ngi jëlee taxi bi HLM Grand Yoff mu yóbbu ko marché Dior nee nag daf ko jël aller retour lundi zéro heure jàpp une heure du matin. 77 489 87 69 lañ koy woowee Pape Thiam taximan la dafa for benn euh, porte monnaie boo xam ni Henri Barthélemy Djibé Tandjine moo ko moom Biagi euh, kon euh, bu dee Henri Barthélemy Biagi mi ngi déglu na woote ci 77 524 79 95 kooku moo for maam Abdou Ndiaye uh-huh. nee dafa réeral benn pochette am na ci biir ay dossier IPRES ñeenti attestation Euh, appui euh, sécurité routière ñaar certificat de travail yu sagam ak yeneen kii daal ko gis na ko woo 77 412 83 29 jéggalu annonce yi bari na lool. kii kii dafa réer waaye yaakaar dafa fort. kii mu ngi tudd Modou Fall. Mm-hmm. dafa réerle benn portefeuille boo xam ne diggante Padois ak HLM Grand Médine. Mm-hmm. carte d'identité mu ngi fa carte assurance nga fa carte. gam mm-hmm. ak carte euh, service. Mm-hmm. ci turu Modou Fall. mu mm-hmm. ñaan képp koo xam ni eh, gis na ko na ko jàppale woo ko ci 77 174 70 08. 77 174 70 08 Modou Fall. Mm-hmm. mu ngi noonu. aja ñu dem ci brève alaaji. laataa ñu dugg ci tës bi tës bi nag tey dafa doy waar. am ngay brève. tës bi nag tey. beneen tës ku ci am solution rek. ne leen tës bi ku ci am solution rek jàpp ci te yàlla rek tax. mais bu mm. njëkk bi moom. Mm, je pense que ni médecins yi aussi ñu ngi leen di ñaan ñu déglu. bu njëkk bi na de. surtout mm. urologue yi. ñu déglu bu baax a baax tës bi. bu njëkk bi de moom. bu metti bi bu bu njëkk bi bu jóol bi. waaw waaw ah, macha allah sant yàlla rek. sant yàlla rek moom moom comme xel xel dal na ci dina jot doomam. ma ne moom neex na ma. waaye na de li ñu dundoon. waaye métti na trop waaye métti. léegi mhm. léegi imaginer espoir bi ngay yeewaat mhm. ci yaayi seen doom réeroon wallaay ndeysaan waaw mhm, espoir bu ànd ak angoisse lay nekk yaakaar bu ñu gëmul te papaam toogul nag papaam fu ñu koy fu ñu koy wax dem na dafa am dafa am dafa am yitte. dafa am pas am na pas-pas dafa am yitte. ay fi day ànd ak pas-pas. waaw loolu mooy loolu la ñuy wax yitte. waaw juhud. waaw dafay am yitte. fu ñu ko yebal tàlloo fa mu dem. loo ci boole wax waaye da nga ciy da ngay nekk ci njàmbaarte. Mm. boo amee birig teg. boo amee benn turéel teg mhm. bañ a xeeb ni nga koy tege tege fu ñu la tegtal nga dem mhm. gànnaar nga dem Gàmbi nga dem ut ay tegtal ak ay firnde ak mhm. certitude nag parce que bu ko wanee photo day xoolal ni non du sama doom am na certitude ci ki muy set tapasewul quoi waaw am ñoo xam mu ñu sàcc seen ginaar bëgg ba ñu bëgg ginaar ga day tax bu ñu seen pitax sax di ko séentu. dëgg la xam ne pitax pitax ak ginaar tolloowul. atia. <laughs> ala tey suñu brève yëpp ci l'observateur lañ koy jëlee. Mhm. benn bi mooy waa ji nga xam ni euh, sama mbokk ab mool moom nag dañ koo jàpp jamono ji euh, moom nag euh, ñu ngi koy jàppee viol. ay xale mineurs yoo xam ne ñaar ñëpp dix ans lañu am lañu njort ne dañ ko daf leen violé mbir mi nag nee ñu euh, bi ñu ko jàppee janvier deux mille vingt la woon fi mu toll nii nag dañ ko tàmbali àtteem mais nag euh, la ca doy waar moom moo di xale yi ku ne cent franc la la la lay jox mm-hmm. mais ñoom ñaan ñëpp lay dugalandoo ci néeg bi Hmm? su tourné ci kii pare tourné ci keneen kii. li ko feeñal nag mooy téléphone portable nga xam da koo may benn xale bi papa ji laajee foo jëlee téléphone bi mënu ko diw moo moo ko may ci la xel mi ñaaw donc ci lañ découvrir ni yegg na ci kaw ñaari xale yépp te daanaka ci même waxtu lay doon maanaam mooy loolu tubaab am na nu mu ko tuddee bugguma cee yegg. Hmm. noonu la ah, kay ni ko tubaab tuddee wax ko. noonu la doon def ak ñaari xale lay jàngale. alaaj bugguma cee yegg hmm. bàyyi rek. partout. waaw kay moom la yaa ko wax. loolu la doon def ñaari xale dix ans. wallahi ay xale dix ans la ko doon def dix ans nga ah, dix ans nag doy na waar fi mu toll nii nag fukki fukki at mi ci loxol yoon ñaar ñooñu nga xam ne aussi dañ leen bettoon ci euh, Sénégal ba muy joué ci benn jumaa hmm. ñooñu it euh, ñuy def naka sudul noonu ñaaw lool waaw kay hmm. kooku nag ñu ngi koy atte moom fi mu toll nii sàkku nañ juróomi atu kaso ñu tëj ko ko nee na nag moom dafa am ay jafe-jafe xel maanaam dafa am lu koy dikkal daanaka moo tax mu koy def yenn yi mais nag dafa mel ni attekat yi topp ñu ko ci loolu sàkku nañ daal ñu tëj ko juróomi at ñi nga xool ba xam atte bi bu ñu koy délibéré fu muy mujjee beneen bi nag moom moo di euh, soxna si nga xam ni dafa am borom kër waaye ci biir borom kër gi mu am dafa nekkoon di bëggante ak keneen jëkkër jën nag ba mu ko njortee <laughs> ba mu ko njortee mu am rendez-vous ak waa ji dikk daf ko topp topp ko nag ba benn àll bugguma wax nag fan la balaa alaaji naan dëkkam laay tudd tëddal. bëgguma wax fan la wax la ñu xibaar da ko topp ci benn àll. waaw kay kon xam nga fan la. lu lay xumb li ma wax kay leer na. Ah, <laughs> léegi alaa dëkk ba mu ko toppee. Mm-hmm. taxaw di leen seetaan. wala si wala wala. dëkku daje la foofu la daal foofu la daal. alaaji foofu la rek. zone boobu la daal. bi mu ko toppee daal ba ci benn àll. la ko fekk mu dugg ubbi woto waaja. que muy bëgganteel ubbi oto ba dugg jëkkër ji nag am patience taxaw mm-hmm. gis leen ba ñu tàmbali ah, ba nekk ci digg daal màdday taali mm-hmm. ci la jëkkër ji nag jëlee brique def toj parabrise ba mm-hmm. boroom oto ba ci la génnee daw jabar jaag jëkkër ji nekk fa di xeex xeex ba nag metti na lool fi mu toll nii nag ñoom ñett ñëpp ñu ngi prison moom ki nga xam ne nag moom la doon bëgganteel dafa ni ndaw si da ko waxoon ne moom dafa divorcé moo tax mu nekk ak moom. Mm. mais ñoom ñaar dañoo gaañante jëkkër jëkk jabar ji daanaka daal ñoom ñëpp. Mm-hmm. yóbbu nañ leen prison ba fi mu toll nii euh, ñu war leen a àtte. jabar ji war na see nekk di xeex moom mm. ña de ñu ngi leen war a àtte ci kàttanu borom bi. daa waroon a ak dal rek. waaw si bidon leen. kon bett na mm, leen. preuve am jarul xeex. c'est que nag yenn yi moom des fois attan ko. waaw c'est vrai preuve la bëggoon lu ne romb na moom mu taxaw di xool daal. ba xam naa daf leen bëggoon bett ba am ci preuve yu leer. vidéo rek xam nga ñëpp nag amuñu dal googu. dafa metti nag. Hmm, neexut si ñëpp amuñu dal googu dafa a metti nag. neexut ci xol mu ngoogu euh, alaaji. tës hmm. bi li ma ne urologue yi nañu déglu. waaw Euh, ab xale bu góor la. waaw xale bu góor bi nag jaaxle na lool. Mm-hmm. ndax lim may woo bari na lool bari na lool. non dañu jàllale gis ba noppi. kan la. vérifier kon. vérifier vérifier mm-hmm. boobu ba pare. waaw nangu Mhm. na nga ko ci. ayca chimère. ko. Adji bonjour. Bonjour. Vous avez porté plainte donc pour viol il y a plus d'un an contre Ousmane Sonko. Vous en êtes où aujourd'hui dans la procédure euh, judiciaire? Non, instant moom. Pour le moment, je ne sais rien du tout et je n'ai pas de réponse. J'attends. Personne ne me dit rien, c'est long. C'est comme si la justice avait peur du gars. C'est comme si dañu ragal le gars. Vous avez dit dans, dans votre plainte que vous avez été victime de plusieurs viols qui se sont déroulés à des semaines parfois d'écart. Pourquoi avoir porté plainte une fois qu'il y a eu plusieurs viols selon ce que vous dites? Qui suis-je pour porter plainte contre Ousmane Sonko? C'est ce que je pensais avant de porter plainte. Au début, je me disais que personne n'allait me croire. C'est au moment où j'en avais marre et où j'étais fatiguée que j'ai décidé de porter plainte. À cette période-là, votre nom a été divulgué dans la presse. Vous avez subi euh, des insultes, des menaces sur, euh, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Comment vous avez traversé cette période Je dormais pas. Je mangeais pas, je me donne dit titre. J'avais tout le temps peur, même en allant à la douche, je portais mes habits par peur d'être attaquée. Mais vous aviez peur de quoi violence bu amoon ci dëkk bi. J'avais peur des violences, tout le monde m'insultait et même ma propre famille avait peur de s'identifier à moi. Ma famille craignait de m'appeler au téléphone ou de venir me voir, de peur d'être tuée après. Il n'y avait que moi et ma peur. J'avais peur de sortir et d'être reconnue, ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, Je vis avec ma grande sœur, ma petite sœur et avec une tante. Il y a une association qui nous vient en aide, bon, pour les protéger. je ne donne pas leur nom. Je suis tout le temps obligée de déménager. Ma tante qui est restauratrice m'appuie aussi, mais sinon personne d'autre ne m'aide et je dois déménager tout le temps. Un an après, dans quelles conditions vous vivez et qu'est-ce que vous faites toutes vos journées tout le temps maa je suis tout le temps entre le salon et ma chambre je ne peux pas aller sur le balcon ni élever la voix pour ne pas réveiller les soupçons et pour que les gens ne m'embêtent pas je fais rien à part prier. est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des séquelles des violences que vous dites avoir subies. je prends des médocs pour dormir tout le temps et des fois j'ai peur que les gens viennent m'attaquer durant mon sommeil. est-ce que vous avez une aide aide médicale ou autre pour surmonter euh, ces euh, traumatismes Non, rien du tout. J'aimerais que quelqu'un m'aide pour que ça s'arrête parce que jusqu'à présent, je ne dors pas. Dans ce pays, il n'y a que le pouvoir qui marche. Si tu n'as pas d'argent et si tu n'as pas de pouvoir, tu n'es pas considéré. La justice est à double vitesse. Mais comment vous imaginez votre futur au Sénégal Je n'y pense même pas. Je pense partir et revenir en force pour régler beaucoup de choses. Au Sénégal, les femmes combattent les femmes. Ce que j'ai vécu, je ne veux plus qu'aucune femme le vive. Il y a eu des municipales, des élections municipales au mois de janvier. Ousmane Sonko a été élu à la tête de la mairie de Ziguinchor. Comment vous êtes senti le jour où vous avez appris sa victoire parce que c'est incroyable. Quelqu'un qu'on a accusé de viol et qui devient maire, alors qu'avant d'être accusé de viol, il n'était rien du tout, seulement un simple député. On l'accuse de viol et il en a profité pour en faire un dossier politique. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il a de plus en plus de pouvoir. Et donc, euh, qu'est-ce que vous attendez de l'État Qu'est-ce que vous demandez à l'État sénégalais je ne veux rien d'autre qu'un procès. Toute personne qui veut me soutenir doit m'aider à ce qu'il y ait un procès pour que je puisse retrouver ma vie d'avant. J'en ai trop besoin. Adjissar, merci. Seydina Limamou Laye Sena ah, alaaj dafa réeral benn saag bu ñuul ci benn yi am na ci biir euh, trois cent mille francs mi ngi wàcc jàmmalaay maam Seydi ah. euh, ci côté ñooñu nga xam ne dañuy jaay jën yi foofu sama sama koñ la nag nee na nag euh, saag bi amoon na ci biir ay chéquier ak ay dossier ah. yoo xam ne am importance la ko gis rek na woote ci soixante-dix-sept 925 47 62 77 925 47 62 mu daal di laajte awalaay kon nag euh, képp koo xam ne gis nga euh, mbir yi rek di papier Seydina Limamou Laye Sène euh, ci taxi la réeral benn somme boo xam ne 300 mille francs la. Mm-hmm. donc te jàmmalaay maam Seydi ci côté fa nga xam ne foofu la ñuy jaay jin yi foofee la réerale xaalis boobu kon képp koo xam ni for nga ko rek nga daal di ñu ciy dimbali bu baax a baax ngir mu jot xaalisam boobu. laaj euh, li tax ma ne urologue yi nañu déglu mooy waa ji li ko daal dafa metti mm-hmm. li may woo nag bari na lool li ñuy jokkoo daanaka bari na euh, muy jëm ci ñu dem pub te ñëw chim doobaa ñu tës ko rek. waaw kon ñu dem pub ñëwaat yéen électricien yi ak yéen ñii di professionnel bâtiment ak particulier yi xibaar bi yéen a ko moom waaw waaw bu leen yàqati seen xaalis di jënd leneen lu dul tube orange bii di Sosena bi tudd léegi turboflex mi tax mu gën a dëgër ndax mooy bi gën turboflex bu Sosena longueur bi 100 mètres lay def teg si ñu defaree ko mu respecté temengoog ak norme internationale ma dolli tube orange turboflex bu Sosena lu wóor leen ko liggéeyee te mu ànd ak qualité saa orange na baax ndax am na étiquette bu ñu bind turboflex bu Sosenap am na itam ay tube normalisé ba ci diamètre cinquante Sosenap 1982 ba tey lu yàgg dëgg la. Alaaji Waaji nag. Mhm. saa bu sëyeeg jabaram deux ans ngi nii. Mhm. au lieu muy génne leneen. deret lay gis. mu sëy ak jabaram. sëy jabaram ba noppi. day ñëw chaque jours walla nee na mën na toog un mois ba jàpp deux du ko gis. du waaye daal du gis deret waaye daal di mu koy gis bari na te jaaxal na ko. man mi muy ko sax xam naa ne waa ji jaaxle na. li mu koy def day bëri ah, li mu koy. li muy sëy day bëri non expliqué wul yooyu yëpp mais nee na. daanaka daal li mu gën a nemmee gën ko remarqué mooy. moom bu sonnee dëgg dëgg ci fa muy liggéeyee ba yëg ni yaramam sonn na. ci lay gën a remarqué ni loolu day ñëw. ok donc nag ñu bëgg nag euh, surtout urologue yi ñu déglu. ku ko ci mën a dimbali Marème si waxal sa waa service yi nekk Dantec ñu déglu ku ko ci mën a dimbali ah. Mm. lu indi loolu ko ci mm. ba pare leeral aussi parce que da ngay gis du moom rek de. am na ay xale yu góor yu ndaw yoo xam ne dañuy faral di am loolu. Mmh. bu ñu bu tuuree ndox ba pare. non non ay xale yu ndaw. Mmh. yoo xam ne dañuy tuur ndox mujjantal ba loolu génn. Mmh. te loolu après mujjantal ga day metti parce que ah, waa ji dafa wax ba wax ni sama ndigg day metti te xam nga man tamit munu ma du ma médecin munu ma def diagnostic mais nag ah comme ndiggam bi mi ngi ciy metti te deret a ngi génn urologue yi mën nañ ci àddu. donc nag ñu bàyyi ko moom mu wax suñ ci paree ku ci mën a wax andi ci ay leeral mu andi ci ay leeral. ku ko ku ci mënta indi leeral ci kawit su ko mënee jël en charge. ñu topp ko jëm koo faj ñu def ko te yàlla tax dama changé voix bi nag ala ñu dem. <laughs> Mansoulaye balaa balaa ngay teg waa ji. dee ñu laaj ñun góor. Hmm. waa ji na wàññi rek. waaw dafa mel ni mu jël dafa bari de. barke Rasulillah na ko wàññi rek gis tànn. dee ñu laaj ñun góor. soit infection wala rek. ah nañ ko dégloo rek dëkk ci. sor wàññi moom. <laughs> non fréquence bi ngay wàññi. non fréquence bi la lay wax fréquence bi. Ah, mais de jëf jëflante bi wax. waaw waaw moo la lay wax fréquence bi. mais est-ce que loolu la. mën na nekk au quotidien mën na bañ a nekk au quotidien. est-ce loolu la. waaw mën na bañ a nekk mën na bañ a nekk loolu. mën na bañ nekk loolu. xam nga non mën na nekk mën na bañ a nekk au quotidien. chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour benn affaire la bu may arrivé boo xam ne nii xam na yàgg quoi presque mi ngi bëgg a def léegi deux ans quoi mais du loo xam ne daf may arrivé fréq euh, chaque jour quoi bon daf may mën na ma arrivé toog quelque temps après mu ñëwaat parce que bon la man xaw ma feebar la xaw ma lan la quoi c'est parce que dem naa ci maam man yi def naa lu ne pour mu faju mais du ma ci gis résultat quoi parce que dañ may jox liñ may jox su ma ci su ma ko naanee quelque temps après bon affaire bi day ñëwaat quoi day persister day ñëwaat mooy ni su may seeg sama soxna xam nga ilee kon ma gis euh, su ma éjaculé ilee kon ma gis euh, mandiwu du ma gis mandiwu dread laay gis quoi waaw léegi nag bon jaaxle moo tax ma ñëw fii sa parce que dem naa ji fu ne maamoon yi ñuy wax fii yëpp la plupart dem naa fa pour ñu fajal ma ko mais du ma ci gis résultat quoi. d'accord est-ce que feebaru feebaru olof la est-ce que du feebaru hôpital li la mel. bon xaw ma. dem xaw ma parce que hôpital moom demagum fa. mais c'est parce boo demee ci maamoon yi c'est parce dem naa mais dañ naan la bon lii ah, feebaru bon sa sa mandiwu dañ naan ma sa mandiwu moom moo. moom moo faible quoi. Euh, ndoxu siti bi moom mooy lakk sa sa sa sa man. am ndoxu siti. waaw waaw ndoxu siti moom dama ko am dama am ndoxu siti moom waaw dama am ndoxu siti c'est parce que la. léegi euh, maanaam affaire bi moom yow kañ kañ nga ko kañ la kañ nga ko commencé sentir. waaw non léegi def na à peu près ay ay ay deux ans quoi mais nekkul loo xam ne day day ñëw tout le temps quoi mun na ma dal léegi comme par exemple mun naa sama soxna tey du ñëw. sëyaat ak moom affaire bi ñëw wala léeg-léeg mën nga tegle ñaari yoon di sëy ak moom affaire bi ñëw waaw noonu lay ñëwee quoi. kañ nga amoon soxna. bon naa am soxna quoi mais def ñu tàggoo. maamaat soxna. te soxna bu njëkk bi loolu daawoo ko woon seet. non daaw ma woon seet. yàlla def na sax am nañ ay bant. am naa bant quoi am naa ay doom waaw am naa ay doom. affaire bi bi mu dalee ak léegi amagoo ci ah. doom. non bi ma dalee ak léegi nag c'est parce que kii bi ma takkee yàggul quoi mais bi ma dalee léegi yow bu fekkee ne yaa ngi sëy ak sa soxna ah. ba nga xamante ne nii war nga war war nga gis mànnuyu bi. Hmm. boobu noonu bu deret bi buy ñëw day metti. non du metti du def dara. parce que da da da ngay comme ni ngay éjaculer noonu ngay éjaculer mais au finish boo paree après ngay xool nga gis ni lii deret la quoi waaw. Ah. nga gis ni lii dërët la quoi. te dërët boobu yow dalay leer dalaa leer na si yow la jóge jógewul si non jógewul sama soxna ci man lay jógee si man lay jógee quoi. jógewul sama soxna da nga koy gis yow da àpp da nga koy. da koy gis nii moom xam ni moom tamit xam na ni lii c'est parce que moom boo gisee sax man ma ñëw fii nii sa parce que dama jaaxle. parce que moom wax dëgg yàlla xale la mais moom à chaque fois daf may encouragé bon affaire yi peut-être lii feebar la rek da dem xam nga xool foo xam ni fa la ñuy ñu xool ku ñu mën a ku ñu ko mën a fayal mu fayal la ko quoi. d'accord yow première fois bi ma gisee affaire boobu noonu. Euh, lan nga def da nga dem hôpital wala da dem. ci sëriñ première fois bi ma ko gisee damaa dem hôpital mais bi ma demee hôpital dañ ne ma carrément parce que du peut-être feebar la rek quoi lii garaawul après ñu bindal ma ay am na ay ay comprimé yu ñu ma bindaloon nga naan ko mais boo naanee comprimé yi après doo gis résultat quoi peut-être mën moment bi koy naan mën la arrêté mais boo continuer di naan tamit da ngay dem ba benn da ngay gis affaire bi lu muy ñëwaat te man xëy na man damay jàpp ni xëy na tamit waaw léeg-léeg li tamit dafay metti damay liggéey liggéey bu metti parce que damay liggéey maçon damay liggéey liggéey bu metti bon mën na am ni loolu may liggéey sax parce que chaque fois léeg-léeg la plupart buy ñëw bu ma demee ba santi coono coono dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moment boobu su ma seeyee ne rek dama koy gis quoi mais ma toogee nii noppalu ko toog quelque temps liggéeyu su may sey loolu mën na bañ a ñëw quoi mais su ma sentiree coono dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg damay damay dama su may sey dama koy gis quoi waaw parce que nee day jàpp sama ndig lii xam nga a affaire bu doy waar la quoi affaire bu doy waar parce que dem naa hôpital mais dañ ne ma lii du dara nga dem ci maam yi ñu ne la non lii ndoxu siiti la sax parce que sa màndiwu moom moo moom moo faible ndoxu siiti bi moo ko làkk noonu ba sa màndiwu faible moo tax loolu di ñëw. léegi daal ñaari at a ngi nii yaa ngi koy gis. waaw waaw ñaari at yoo xam ni mais du du du kii mën na toog ay ay ay weer presque toog ay weer doo ko gis mu jag ba si yàgg rek après ñëwaat noonu lay def quoi. d'accord bi nga takkee sa soxna su mujj seeg léegi def na ñaari at. non deful ñaari at parce que kii bi mu ko takkee léegi presque peut-être ay quelques weer lay bi nga bi nga xamee ne ci nga takkoon sa soxna su njëkk si bi ngeen divorcé da nga doon da nga doon foo après. non non non non yàlla na na ci kii laay wax rajo laay wax ku ndey nag ak sa bàmmeel quoi du foo. la lii bi ma njëkkee soxna. sa soxna su mujj. soxna njëkk ji. bu ah, njëkk bi waaw kooku ci fin bi kooku ci fin bi presque bi ma arrivé après noonu quelque temps rek lañu la ñu am problème ñu tàggoo mais tamit suñu tàggoo lii indiwu ko du question affaire bi moo tax ñu bàyyante xëy na lu waroon am na suñu diggante man ak moom am na. d'accord da faral di di di téye sa sa yi lu bëri di ci di ci foofu. non yàlla seere na ni man doomu doomu doomu jullit laa quoi man loolu moom du ko def quoi wax yàlla. ok kon li la dal nii dafa ñëw parce que doomu jullit la et xam naa li nekk ci loolu parce que xëy na loolu su ma ko doon def wala su loolu la peut-être xëy na du ci yàlla dimbali ma ba am naa am naa ay bant mais problème bi dama takk soxna mu nekk xale xama te moom lii mënoon na ko gis moom mu am beneen nu mu nu mu comporté woo quoi na la siiwal wala soit mais à chaque fois moom dalay encouragé di la xamal ni la carrément lii nii nii du dara peut-être feebar la rek quoi comme feebar yëpp quoi. li ñuy def moo ñuy ut solution pour nuñ ko fajee loolu moo tax man ma ñëw fii loolu moo tax man ma ñëw fii pour c'est parce que dem naa ci maaman yi fii mais gars yi dañuy dañ lay ba sonn léegi nag damay lu fii mooy ni dama bëgg ku ma ci koo xam ne dégg ko ku ma ci mën a jàppale xam nga jàppale ma ci man loolu loolu loolu loolu moom moom moomu fi indi quoi c'est parce que wax dëgg la bon mi may bëgg a jaaxal quoi dafa nekk loo xam ne dafa ma commencé jaaxal quoi commencé ma perturbé loolu moo tax ma ñëw fi waaw du du dara nag moo tax ma ñëw fii du xaaj dara c'est parce que xale bu ndaw maa ngi liggéey xam nga waaw macha allah quoi xam nga waaw mais nag lii dafa may bëgg a perturbé quoi te dafay bëgg a dafay bëgg a commencé durer quoi moo tax te nag wax dëgg yàlla bu fekkee la bu fekkee tamit affaire docteur la bu fekkee am na docteur bu ko dégg tamit boo xam ne xam na lan la te mën ma si jàppale tamit mu jàppale ma ci bu fekkee tamit c'est sûr que lii tamit affaire olof la na ko leer ma ma ñëwee jàppale ma ci tamit mu jàppale ma sax parce que rek moo tax ma ñëw fi mais ñëw ma fi pour pour leneen xam nga waaw loolu daal moom moo moom ma fi indi woon quoi waaw wax dëgg yàlla. merci beaucoup waaw ëpp na doole. ngoog donc euh, ku ci mën a jàpp rek. daa mhm. mhm. mhm. ku nekk foofu. en tout cas feebar bii de. na jàpp yi daal. jàpp yi. feebar bi moom. non yi dañ ko mën a kii. Ah. xam dañ xam si. jàpp yi daal. maanaam daal dafa daal tuuti. ak buñ ko bàyyee mu daal. parfois tamit duñ la bàyyi nga noppalu de. Hmm? nga jéem a xoolaat rek. sista Ndiolé nuyu naa la bu hmm? baax. Hmm? Ah, mun la lan la. mun la lan la. Ah, am na ko xam siñ yi. am na ko xam siñ yi. ah Malick Mbaye suñu xarit bi nekk Barcelone tey la anniversaire am. nga. léegi mën nga ma jox numéro numéro médecin bi. min yaa rabbal alamin est-ce que du la même. Mm-hmm. Mm. est-ce que waa ji wax nañ li muy jëflante dafa bëri. lu mu tudd. waxul loolu. Mm. Mm. day dem foofu mu laajte. moom mm-hmm. dama ngay lijjanti moom. mantu la. léegi yow maa lay jox léegi numéro waa ji maa ngi koy jox sa numéro moom loolu la woo comme ça tegtal ko exactement fan la dégg nga. Ah, mhm. ñoo xam ne ñuy waaw comme li wax rek ñun li jàpp ne peut-être dafay daf ciy nekk lu bari. wala parfois muy fo ci mm. boppam lu bari. muy fo ci boppam lu bari. waaw comme nag du dul genre mm-hmm. di pôle. Mm-hmm. peut-être mën na am également infection tamit nee nañu. ah alhamdulilah. waaw alhamdulilah. ah mais jëflante bu bëri jëflante man mën mën naa indi yëpp. tout excès est nuisible. cher. ah cher tout excès est nuisible. mais ci yoon ci yoon jëflante gi ñaata léegi bu ñu waxee ne voilà lool mooy fréquence bi. benn. semaine bi non non non nekk loolu mais mën naa nekk feebar aussi. xam nga semaine bi sept sept sept sept jours la. maa foog ni kii nga am na waajoo xam ne exactement même signe yi. dama amoon que kii yi mu expliqué yëpp moom nee na looloo ko daloon même même deux ans yi mu na moom faju na lu ëpp loolu ah. mais finalement boole nañu ak médecin bi ko faj ah, sant yàlla te moom nee na depuis ba tey nag wax dëgg yàlla gisatul dara wér na te te wax na nag li ko daloon peut être après bu micro yi wàccee dina dina expliqué waaye métier la bokk de bu bari daanaka genre bi Fabrice doon wax ah waaw loolu tam mën na nekk boobu Fabrice waaw comme mën na nekk beneen ki infection rek donc sant yàlla su paree su su paree incha allah. bilaa bilaa Diouf lañ wax parce que am na ko ko amoon ku ñu ko expliqué. waaw am na ko ko amoon ku ñu ko expliqué sànq. bu ñu paree waa ji nañu contacter. na ma contacter su paree léegi nii bu ko defee ma jox ko numéro ki ma doon jokkool mu boole ko ak médecin bi mu dem foofu noonu. ci ci médecin bi ñaata yoon war nekk ci semaine bi maximum. am na ñoo xam ne trois fois am na ñoo xam ne nee nañ lu mu gàtt gàtt trois fois wala bu mu ëpp ñeenti yoonu trois fois ci quatre fois maximum. damay woy docteur Jeanne yow. am na ñoo wax genre damay wax suñu boobu. fréquence bi mais fréquence am na ñoo xam ne mën nañ ci dëkk lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba dimanche. xam nga maanaam sept mais xam nga euh, ñëpp xam na nitu teg seen nuisible. Mm-hmm. bu baree da gaañ gaañ euh, euh, sonn si nga nekk loolu nga bëgg bëgg bëgg. et puis am na foofu foo xam ne boo boo fa tolloo nii chaque jour ngay ngay génne loo xam ne nii peut-être da nga benn toll boo ne moom xam doo génne dara. loolu moom mooy moom mooy gaañ gaañ bi. léegi moo tax ñu ne au moins nga may sa yaram mu noppalu ko benn fan wala ñaar nga doog see nekkaat. loolu kay maanaam am na ñoo xam ne mën ñu toog loolu mën nañ mën nañ ko. toute la semaine bi waaw. tubaab ba daal ñetti ñetti ñetti ñetti wala ñaar wala ñeenti ñeenti jëflante bu ne mën nga ca am ñaar déedéet. ça ça ça ça dépassé njëkk fa mu toll. benn rek ma cher. tubaab baag waaja. Mm. ba ñu nekkee célibataire ñu jàkkaarloo appartement. Mm. ñu jëlandoo soxna. Mm. waa ji bu demee expo ñëw xaatal xaatal tubaab bi ni ko su fay takk mu gaay affaire bi. ñu ko waay gaay tuuti. gàtt laa door. ndeysaan daan daan daan naan daan naan ba teg baraada. tubaab bi ni ko mën rek benn rek. dem dem un an deux ans. sa waay ci quartier ba léegi mën ko trois lay door léegi. waaw tubaab bi kon benn rek. loolu sax. dafaa hmm? dina ñetti at ñeenti at. copain alors. ñaata kan léegi léegi deux rek. waaw ah, tubaab bi nag man benn waaw. Hmm. dama la ñetti at muy fukki at ak ñaar. Hmm. copain alors. ko léegi benn rek. tubaab bi nag baax na. ñett muy fukki at ak juróom. tubaab bi nag alors sa waay ko. benn par semaine. Ah. <laughs> tubaab yi ko mën. ci level bu man toujours benn rek. loolu. ñu jëkkaat yeneen ñett mu fukki at ak juróom-ñett tubaab yi ko mën benn par weer. maa hmm. benn par weer waaw. <laughs> tubaab yi ko mën toujours benn. yokkaat ñetti at mu ñaar fukki at benn tubaab yi ko si waxee mën ko. dañ may puus sax ma soog a tàkk. <laughs> naan xataay daal lool lool baax na. Eh, sa benn xarit ci loolu lay yëngu nee na deux deux deux fois la par semaine moom la ñu wax. mais xam daa rek nag moom itam. <laughs> moom ci loolu lay yëngu dafa bëri wala dafa tuuti. kër docteur moom la nekk. ala dafa bëri wala dafa tuuti moom kër tuuti deux fois par tuuti waaw moom ku mu yàpp. alaaj dafa tuuti. maam nee sa waaj ku mu yab. dégg nga ci nee nañ koo yab. léegi deuxième tës bi. waxal maa may man yow ñett ba ñeent. ñeent waaw. xam naa ñeent da ngay ba ñeent. non ba juróom sax. Ah. waaw waaw weekend bi. mooy yéen waaye nañ caaxaan. Ah. naxtu foofu. man daal. sànni bi kay léeg nga naan loolu sax. li ñuy waaw li ñu santaaniwul daal. mooy ñaari lëwal. benn vingt quatre heures moom. Mhm. benn baax na. bés bu ñeenti jawaar. ah mais sam na doole rek pare mën ngaa naan loolu dimanche matinal bi noonu nga tàngal. ku bàyyiwul naan attaaya matinal nag xoolal wuy ma deegu gaaw gaa ngi noonu. wuy ma. attaaya matinal day rey nit de. Hmm. bàyyi leen matinal. yooyu tas ah. kas daan tas naan euh, fajar day nangam ku ne kii njël ak nangam. Ah, kon guux attaaya fajar gi moom. loolu jaal hmm. ah, naa layla libaasan. on eh. a. ah léegi fajar gi nag ah. guddi lépp naan teg. neexut a muñ di. tës bu mujj bi. léwal waa ma ne tës bu mujj bi bu leen bàyyiwul dimanche suba teel de. dinañ leen bantuma a ci wax ji. waa ji soxna ji si def fa la ko teg. yaa fekk say bàyyi ñu ñu toog. nga ne ñu si seen biir. waa suba la ko mooy man laa di ma manqué fan yi damaa lakk la ñam xeeñ ma ma woo ni ko foo ne kër gi man laay. dalaa manqué woon studio bi xeeñ na lakk lañ foo ne parce que gis nga ne bàyyi si li ñu maa ngi yow li ñu bëgg bëgg pax <laughs> bu dee ñun dong dootul xeeñ pax tout à dootul xeeñ parfum. wallaay du safe. jotaayu góor a soof. billaay wallaay du safe. ah musiba la. mu yéen. balaa nga koy xam balaa nga koy xam matinal Yacine Seck ñëw dañuy renfogné de. ku nekk day ñëw commenté benn commenté dem <laughs> ba fa Yacine nekkul góor yi kese. mbir mi jeex. doo yàkkamti matinal bi jeex. góor yi bokk benn nekk. buñ ko dundee ki ci gën a néew doole moom boo moytul moom que ni gën a néew bopp. Mm-hmm. boo moytul moom dana faatu fa yàlla. dë day de <laughs> ah, ah, sama jabar ji bi jaajëf maa yónnee benn mantu. ndaw si euh, depuis 31 mm-hmm. le réer euh, je suis la recherche de mon fils El Bachir Camara disparu depuis le 31 décembre 2021 Tanger ca Maroc. Tanger la réer waaw. Mm-hmm. foofu la réeree donc papa moo koy seet. Mm-hmm. waaw kon képp koo xam ne gis nga ko Bachir Camara leeral su nga a jël contact ak ñun en tout cas papa moo koy seet. Mm-hmm. voilà ji kon communiqué baa ngi noonu. Euh, Mantou kii tamit Cheikh Mbaye ah 15 ans la am. bu nekk classe quatrième mi ngi dëkk ca golfe Dakar ba mu génnee daal lañ ko gëj a gis ba léegi. Cheikh Mbaye mii. dara jotu ko nag wér péng la def élève la sax bu nekk classe quatrième 77 532 37 61 77 532 37 61 pour képp ku ko gis jàppale ci ay mbokkam. Cheikh Mbaye. Mhm. Alaaji waa ji ci SEDEPS bi la nekk. waaw waa ji nag ci SEDEPS ba dafay tàggat ci transformation. <laughs> femme bi doon def formation moom it ci SEDEPS ba benn ONG xamante fa ak waa ji. Mhm. andi ko ni ko na tàggat seen waa koñ. Mm-hmm. waa ji nag bi mu ñëwee ci tàggat ga ba noppi. Mm-hmm. xamal leen ni mën na leen jébbal ay financement mm-hmm. waaye financement yi day ànd costion cent mille bu ne dix mille franc la caution ba. ñii dajale seen cinquante mille. ñii quarante mille. ñii vingt ñii dix mille ba mu mat cinq cent et jébbal ko waa ji. waa ji nag ci lañ ko gëj a gis. Ah, ah. ci lañ ko gëj a dégg. waa ji nag mi ngi fii conseiller la ci mairie bu Louga. Mm. ci campagne bi de mën na Louga campagne. falu nañ léegi conseiller la. non dellu si waatal ci ne waa <laughs> en arrière. waa ji rek leen kase. dafay laaj financement. te xam nga association association bu reconnu la yor sax. waaw ñiy def loolu dañoo bëri daal laaji. waaw yore seeni association. Mm. di dem ci euh, soxna yi. waaw di leen defal ay formation. waaw jox li wan leen ay vidéo naan leen maa finance ñii maa financé ñii. Mm-hmm. ñu jël seeni xaar dajale jox la. Mm-hmm. dootuñu la gisati. ñun ma ci kalaame nag bëri na. te am na ñu may dégg ñoo xam ne jot naa leen woo te ci rajo bi jot naa leen woo téléphone ba nu fay. ñu ngi may dégg. waaw ah, dëgg la ah, am na ñu may dégg. waaw ah, ci xam. ba femme yi boole ma ñoom dama jël sama. dama jël seen i numéro woo leen. ne leen fay leen bor yi balaa ñuy egg fenn fi man bari na kaa yoo xam ne du ñëw tës de. damay woote téléphone. avertir ne la fay ko jarul muy dem tës. nga fay ñu jàll ci leneen. kii nag moom soxna si peut-être daf maa jiitu fekk fi Mouhamed mu jël ko mais ma fekkoon. dama koy jël. ni ko jox ma numéro jox ma numéro kooku mu jox ma numéro ma woo kooku kooku jox ko xaalisam mu jeex. waaw nii la kaa bi demee léegi nag yow soxna si yow waa ji damaa dagg sa tur bi dagg lépp ndax sa tura conseil municipal la. waaw conseil municipal la Louga. ca mairie bu Moustapha Diop bu dee Moustapha Diop mi ngi dégg conseil bi nañoo ma jox ko turam. ak santam Moustapha mu ni léng. fayal xaalisu nit ñi mënuloo ko dara. ndax soxna sii di wax. Ah, ah. moo ko boole seen waa konte ñu ngi koy fayeeku si xaas bi moom. ci boppam ah, moom mi lu nekk mën na ko cee fekk sax. mën na oh. ko cee fekk. waaw. waaw kay. waaw. am na ko fi defoon fan yee ne ko man dinaa yóbbu sa doom mu tukki kooku jox ko xaw ma ñaata xaalis ba tey nii. nii ah, ah ba tey nii maa ci topp di wax di dara dari boobu ba tey. bàyyi leen financement yi ngeen di dig nit ñi. Hmm. soxna yi surtout nga xam ne dañoo bëgg liggéey. soxla ko ngeen di jaar ci seen i xel yi di jël seen xaalis di daw. soxna yi ñoo bàyyi affaire financement yi tam. waaw ah, financement kat am na ñuy jot moo tax da wóolu rek alaaji. madame Diop maa ngi lay ziar bu baax sama xarit bi. ci ah. ministère des finances yal na nga am jàmm. alaaji balaa ñuy dem. ñu leeral ko. démb fekkuma fi. mais euh, mooy xale boobu nga xam ne dafa amoon feebar te jëkkër ji bañ ko yóbbu Belgique. Hmm. waaw waaw euh, dossier médical bi envoyé nañ ma ko. Hmm. donc moom problème cardiaque la am. moom ndaw si. te apparemment nag sérieux na trop d' après résumé bi ma gis. te am na possibilité dem Belgique. am na possibilité parce que yaayam moo koy lijjantil d' après résumé bi. jëkkër ji moom moo ko téye. moo bañ jëkkër ji dafa bëgg ñu lijjanti ñaari visa te yaay ji dafa ne moom benn la mën a lijjanti. Ah, jëkkër ji ne jëkkër ji nag jëkkër ji nag jëkkër ji ne yëfi ah, ji dem. mu ji en mm. fa jabaram. Mm-hmm. te dem mu yóbbaale koom parce jabar bu tawatee yaa koy faj. Mm-hmm. waaw waaw. yow visa li jënti pass koom taxawu ko. yaayam pare na pour jël jël fajal la kay. bàyyil mu dem faju ji rek. bàyyil muy def bu paree bu wéree mu ñëwaat. sëñ bi kii correct bul de topp sa kilifteef quoi. waaw waaw na te waaye nañ ko waxtaanee seen biir rek te bàyyi ko mu dem faju ñëwaat. bu fekkee tilem daal vraiment bàyyi ko mu dem faju ñëw ngeen dundaat seen dund. kese ah bu fekkee tilem paa naan tànn na tànn na affaire du caaxaan. pour mu ne da gis ba ne. kii ko quoi bàyyi ko quoi bàyyi ko nu ko dimbali rek mu dem faju ji wér gu yaram du caaxaan. comme booy bàyyi ko waay wér gu yaram ñu dem ci arnaque ba. Hmm? ak conseil municipal ba ca Louga. Hmm. Chimère Aïcha. madame waaw man de dama amoon benn problème ak benn waay euh, bu ma xamee ko Petit Mbaaw laa ko xamee ci CDEPS bi. muy def CDEPS bu Petit Mbaaw. waaw CDEPS laa ko xamee. waaw waaw loolu laa jàppoon dama jàppoon ni foofu la doon liggéey. léegi moom ay formation la doon def en céréales local donc mu jiite benn réseau bu ñuy wax REL réseau des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. la la jiite. léegi nag man foofu laa ko gisee muy def formation ay formation en céréales locales et léegi ma ne ko bon formation yi ma ne intéressé na ma pourquoi pas nga ñëw defal ma ko sama koñ mu ne ma waaw mu mën a nekk la ñu waxtaan si ba juboo léegi nag ñu débuté formation yi depuis. Euh, léegi defal formation yi da ngeen léegi moom dafa ne woon jarul ñu koy fay parce que comme c'était une première fois. moom mun nañu ko defal gratuitement juste dañ koy jox transport frais transport donc lañ koy jox mais pour formation coût formation garaawul. d'accord kon kooku defal na ñëw na ba defal leen formation. waaw ñëw na ba defal ñu formation ba mu jàll. mais cas bi mooy. kon waaw parce que réseau bu mu jiite c' est au niveau national day def ay tournées nationales fii ci Sénégal donc il a des papiers yoo xam ñëpp xam nañ ko. day effectivement dañ koy day génn ci télé gis naa ay interview yu ma envoyé woon ay vidéo et tout am na yoo xam te ne sur le net laa ko jëlee aussi donc il est connu. léegi nag euh, durant formation yooyu noonu mu ne moom tamit day yëngu ci ay wàllu financement léegi. ma ne ko ah financement nu muy demee mu expliquer ñu mu ne par exemple su nekkee da nga bëgg cent mille francs da ngay joxe dix mille francs nga joxe comme caution su dee vingt mille francs bu dee deux cent mille francs vingt mille ngay joxe comme caution ainsi de suite noonu la demee léegi nag mu ne ma est-ce que am nga ñoo xam ne bëgg nañ affaire financement parce que mu ne ñoom dañuy jàppale les jeunes ñi nga xamante ne ay jeunes entrepreneur lañ comme man aussi jeune la damay entreprendre te am naa samay morom yoo xam ne aussi dañuy yëngu ci domaine bi maanaam wax ak samay morom ma expliquer leen comme moom aussi defal nañu formation bi et tout durant formation yi la ñu am ci moom confiance ñu yëkkati caution yëpp waa effectivement mën nañ ko sincèrement mën nañ lu ñu doon def loo mais li ci li ci laxasu kay mooy financement yi léegi dafa ñëw ne def affaire financement ñuy kat suñu caution yëpp jox ko léegi journée jour bi nga xamante ni euh, formation yi jours la donc dañoo tëbal benn jour cinquième jour ñu def journée de de remise d'attestation bi si jour boobu la waroon joxe financement yi jour bi ñëw joxewul financement yi mu waxaat ñu deux jours après deux jours ñëwaat encore gisuñu financement yi loolu depuis décembre la woon ba léegi waa ji dañuy dawloo te le pire mooy waa ji mu faale wuñu toog nañ presque deux mois yoo xamante ne gisuñu waaja dañ koy woo mun naa ñu tey suba ginnaaw suba tey suba ginnaaw suba di ñu ko wax élection yi jot moom battre na campagne Louga mairie Louga la nekkoon di battre campagne di def ay statut am te instant yi nii conseil municipal la ci mairie bu Louga donc maire bu Louga la àndaloon di liggéey ci ci élection légis ci élection locale yi nga xamante ne moom lañ génn nii nii nii ci la nekkoon di liggéey léegi nag man maa ngi koy woo dem naa gendarmerie porte plainte gendre brigade euh, de recherche bu zone France laa dem porte naa ko plainte depuis lors dara commandant bi ba may ñëw léegi nii woo naa ko à chaque fois su ma ko wooyee daraan ma lëggaa lëggaa lëggaa gisuma ko te aussi man ba ma demee brigade ba il a suffi juste ma wax turam wax santam rek ñi fa nekkoon ci accueil bi dañ ma doon reetaan di ma naan encore lëggaa encore daf la dóor ma ne ko comment ñu ne ma waa ji de c'est pas la première fois ay nit ñu bëri ñu nekk porté plainte ba ñu jox ma benn turu gendarme du nom ñu ne ma moo ko demoon arrêté ji sax këram fii Petit Mbao fu mu luye woon ñëw fii ba mu mujjee fay xaalis bi plus de 400000 presque 500000 mu fay ko mais nous on avait cru moom arrêté na. mais moom euh, maanaam arnaque yi muy def yëpp euh, affaire financement affaire financement day ñëw gëmloo nit ñi da leen di financé gars yi jox ko ay mu jël xaalis bi lekk ko dem soo ko porté plainte zéro. parce que ñi ko mujjee porté plainte fois dafa deñ ñun dañoo newoon dafa jóge tant que suñu xaalis mais suñu yaay ñoo fa nekkoon di négocier ñu neñu comme jox na leen délai bàyyi leen ko ba délai bi jot délai bi jot gisuñu ko ba léegi nii daf ñu newoon le le 4 5 mois bi la waxoon daf ñuy jox gisuma ko ma koy envoyé message contacté ko mu may menacé naan ma tu ne sais pas à qui affaire fi ma ko xamee dem naa ba foofu wax ak directeur CDEPS bi ma xamal ma ni carrément le loolu la ma wax directeur bi loolu la ma wax donc man dama xaw a voilà am nay xaritu ministre am nay xaritu maire parce que élection yi rek mi ngi doon battre campagne te conseiller la donc moom bu nekkee conseiller la am na liggéey sincèrement c'est plus de 500 parce que ñi dañ ko jox ay 50 000 ñu joxe 30 000 ñu joxe ay 20 000 ñu joxe ñoo ëpp. sincèrement on est plus de treize personnes donc nañu jox suñu xaalis nañu jox suñu xaalis parce que gars yi dañ ma rus te instant bii jour ñu ngi jàppante suñu kër matin midi soir am na maire boo xamante ne yàlla xam na ni xaalisu location la jëloon dugal ko pour am dugal ko caution pour ne moom bu amee financement yi mu benn place am pour liggéey léegi instant bi dañ ko nekk bu ko génnee chaque jour mu jaabante suñu kër chaque jour day ñëw suñu kër di jaabante sincèrement sonn naa nañu jox suñu xaalis nañu jox suñu xaalis c'est pas la première fois mu koy def dem naa gendarmerie ba ñu xamal ma ni carrément c'est pas sa première fois à chaque fois nii lay def léegi man lu ma bëgg a xam mooy waa gendarmerie tax ñu ko jàpp bu dee localisation lañu wax birig euh, commandant bi nee na ma waa ji dañ ko dinañ ko localiser mu jox ma am nag moom ku ma booyoon pour affaire dossier bi beneen kooku tamit ba léegi ba tey ba sànq dara whatsapp dama koy envoyé message mu liir ko du ma faale ma sax tontu sincèrement sonn naa trop xaalisu jàmbur na ko indi na indi xaalisu jàmbur yi moom mi ngi liggéey liggéey mi ngi yor xaalisam na yem nañu yor xaalis parce que liggéey ba sonn nekk ci naaj bi ba sonn liggéey pour mun a am somme yooyu noonu léegi yow xaalis bi bi nga xamee ne dajale nga sa sa sa yeneen xarit yi xaalis bi yow lañ ko joxoon yow yaa ko teg ci loxo man la joxoon xaalis bi man lañ ko joxoon man ma jël xaalis bi jox ko am naa preuve yi lépp ngi fii. kon léegi tey jii nii yow moom bu la fayul. yow da nga war a fay ñële. effectivement c'est ça le problème parce que moom bu fayul man maa war a fay ñële te le pire mooy dafa am ñoo xam ne dafa jël seen xaalis ci suuf ne leen nañ ko joxaat yeneen xaalis encore ñooñu jëlaat seen xaalis joxaat ko yu bokkut ak man yi ma ko jox mais yooyu man mënu ma ko lijjanti sérieusement man yi nga xamante ne moo jaar man jëm ci moom ngir yàlla na ma jox xaalisu jàmm. instant bi nii ñi nga jël seen xaalis jox ko jox ko jox ko le amul kenn koo xamante ne nii mi ngi la ciy menacé wala mi ngi lay porter plainte. bien sûr am na koo xamante ne dafa ma woo carrément mi wax ak moom mu ne ma tu es complice waaw tu es complice expliqué ma loolu su ma koy woon du nangu faat du sax nangu jël am na ñoo xam ne ñuy jaabante suñu kër ba léegi dañuy jaabante. ñoo jàpp ne yow ak waa ji da ngeen a def mess pour teg leen dil quoi. effectivement. sincèrement bu mu bu loolu bu doon bu doon la si ñun duñu def formation bi mais nit ñi xam nañ noonu la mel ñu bàyyi ko muy def lu ko neex si dëkk bi boo demee fi nga xam ne fa nga yaakaar mooy gendarmerie man dem naa porte benn de maintes reprises dem naa fa ba léegi nii ba may ñëw non sérieusement gendarmerie bu brigade bu zone laa dem ci commande ba may ñëw léegi nii rek woo naa ko ma ko jot te à chaque fois su ma ko woowee il me dit les mu ne ma le il n'est pas sérieux ba léegi gisuma ko mais dinañ dinañ def recherche xool fi mu nekk la dernière fois moo ko jotee rek yàggul doon ça fait trois jours lu ma wax daf naan ma ay le gars ma nekkul Dakar mais j'en suis que mi ngi Dakar ko mais ngi WhatsApp tout le temps am na benn gendarme bu njëkkoon yor dossier bi ki ma njëkkoon waxal bu dossier bi kooku dafa yor numéro waa ji di ma naan maa ngi lii rey estati waa ji yu kenn loolu moom wax dëgg yàlla mënuma ci avancer lu bëri mais daal lépp lu ma si xam mooy

dem des mois di gisuma dara sérieusement def délégation yéen ñëpp dem ci man maa njëkk a dem man maa njëkk a dem te ñeenti reprise sottiwul ki ma boole woon ak commandant mu ne ma da def délégation ngeen dem fa ñu def délégation man jubóo dama feebar dew ma ma ne booyi léegi yéen dem leen parce que man instant dama feebar maa nii tëdd léegi yéen ñëpp ànd leen ngeen dem booyi ànd ba foofu dem ñu ne comme d'après lu ñu ma ku ma woo mu ne ma sérieusement man commandant bi lu mu wax ni dalu sama xel parce que mënu ma comprendre commandant ñu toll ni kii di muy woo lu toll ni kii ak li mu def yëpp mu koy expliquer gaañ bi nu mu ko doon tontoo sax ngay xamee ne kii nii yaa quelque chose man dama woon mais gaañ bi man loolu la ma raconté sama dernier moom mooy na ñëw yoon jox ñu suñu xaalis ay jeunes ñoo liggéey nekk ci naaj bi ay jeunes entrepreneur ñii di liggéey ba nekk ci naaj bi moom mi ngi nekk ci liggéeyam na nekk ci lu mu nekk mu jox ñu suñu xaalis na ñu jox suñu xaalis ñu loolu lañ soxla mu ngoog. Euh, su nekkee ni maire bu Louga mi ngi ñuy déglu su dee wala it am na ñooñam bu koy déglu su nekkee ni mën nañoo contacter ñu wax ko waa ji turam naka la wax ci moom mu fay xaalisu jàmbur ndax nag kii nag lim ko teg metti na sonn na. Uh-huh. dëgg yàlla sonn na. sonn na lool lool lool lool. <coughs> bu dee yow yaa ngi dégg te sûrement boo déggul say mbokk ñu ngi dégg. dégg na. <coughs> xam xam na boppam. mi ngi dégg xam na boppam mi ngi xam na boppam. waaw. waaw ku am ku am naxar nag moom moom dañuy ànd moom ci naxar rek waa ji na indi xaalis bi fay ko. Hmm. ak moom mu euh, sa sant bi commencé dee. Hmm. Hmm. fayal. waaw fayal. fayal. waaw. yow moom waaw. am na alal yoo xam ne kenn du ko lekk. ah. am na alal yoo xam ne kenn du ko lekk. en tout cas daal. en tout cas daal du Moustapha Diop. santul sax Diop nag. loolu daa bëri ci réew mi liggéey taw santam taw waaw te aw santam dee la commencé est-ce que sax ci liste Moustapha Diop la demee woon sax. waaw nee na liste maire bi la demee woon ñu gagné. du tee du tee du tee des na des na di nga fay xaalis jàmbur. groupement féminin yi ñoom ñoo war di xam. ñoom ñoo war di dal. Mm-hmm. ñoom bu ñu financement rek dem da ngeen di dal foofu laa doon. jëm si financement daw. dama ko bañoon na damaa bëgg a wax damaa bëgg a wax ak waa mu ne mu fay xaalis. ngeen dégg financement daw fu ngeen dégg banque daw fu ngeen dégg ab daw. ah mooy leen ñetti. Hmm. léeg-léeg nit envoyé ma WhatsApp dama doon financé ay soxna à hauteur de cent cinquante millions beneen yoon a hauteur de deux cent millions. man koy et après. ba pare su alaaji boo gisee waa ji. Mhm. waa ji xam ne moom dafay financé nee na. Mhm. te nee na boppam lay financé te boo ko xoolee yow mii xam ni kii. amul un million bu mat. ba pare mu ne mooy day financé ay cent cinquante millions deux cent millions la logique nag. suñu wax wallaay xam ne bu lay financé sax waaw. nga dem nga dem sax fekk nga tane sëriñ. waaw tane moom <laughs> ah fi ma lay booleel. Binas waay fi nga nekk daa xaw kii de. kii de moom sëñ bi ñaanal nga ubbi ko. waaw tey bu ñu bi kaa a ubbi sa bopp ba noppi. doo ubbi sa bopp maa ngi lay nuyu. ah. dëgg doo ubbi sa bopp ba noppi. waaw dëgg xam nga buddi buntu ubbeeku bi kay ubbi sa bopp ba noppi. formation yi mooy la waaj ji waxoon benn benn waay ci benn benn ministère la nekk. jóge Mbour ñëw ba Kër Sonko. li day jël ñu sama ñëw yaay pour yóbbu leen nguur ñuy former leen ci wàllu transformation céréale ma yem ci weekend ba ñëw fekk ma demoon weekend dem ko songa